soloy ndaje bi moy ñëpp xam nañ ne am ay élections électorales yi di ñëw en janvier 2022 et ñu gis né coow li dafa bari lu bari lu temps yépp ay candidature euh, yu feeñ ci presse bi ben donc ñun lu ñu bëgg a leeral ko suñu secrétaire général euh, Samba Sy candidat fen déclarewul bok candidature am fenn ñun aussi en tant que structure de parti fii au niveau de la coordination départementale de Rufisque désigné wuñu kenn fenn dañu bokk ci ay kuréel comme benn Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal wala Confédération pour la démocratie et le socialisme ci biir kuréel yooy yéen nag yëpp benn benn benn benn kàddu moo jub mooy ñu xool yan profil ñoo gën pour mën a yore euh, Tëngéej donc ñun si loolu la ñuy woote moo tax woo nañ bind nañ bataaxal yóbbante ko euh, coordinateur euh, benn bokk yaakaar pour mu woote pour ñu toog waxtaan définir le meilleur profil. effectivement am nañ ay camarades yoo nga xam ne nii ñi ngi ci gox-goxaan yi di di ànd ak suñuy alliés ñun nag lu ñu fa yabalee mooy ko comme fi ñu yem nii mooy affaire inscription fichier électoral dañ leen wax ñu dem ànd ak ñoom saytu fichier bi ñaax nit ñi ñu inscrire foofu la seen mandat yam li ma doon wax sànq si kii mooy si si nasaraan mooy que mairie ville benn nit rek moo ko mën a diriger donc mënuñu wax ne trois candidatures yëpp boo xoolee ñoom ñëpp ñu ne benn bokk yaakaar moo leen mandatee loolu xel nangu lu ñu jàpp mooy que ñoom ñëpp dañu am yéene te loolu lu baax la nit bu amee yéene wax ne dama bëgg a jiite xalaat ne mën na ko jiite lu baax la ne mu ne man bëgg naa jiite mais suñu en tout cas si lu ñu xam ak si lu ñu yéeg mooy que benn bokk yaakaar daj dajeegul pour wax ne kii mooy candidat benn bokk yaakaar et loolu la ñu conférence des leaders wax mooy que ñu waxtaan xool kan moo mën a kan moo am le meilleur profil pour diriger set kii te ñun si loolu la ñuy inscrire ba gis leneen.